ngir waa jël wotey gox ak gox goxaat yi Makhtar Diop tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Mbàkke ak Touba yabal ndaw ñi ñu dem ci yenn ci ay gox ñetti fan ñoo ñooñi am ko ci fu mel ni Sàmm. yaakaar naa ne def nañu trois jours yoo xam ne tey dañu ñëw Sàmm mu Mubarak biñ ñëwee fii lañ fi dañ fi logé mën naa ko wax trois jours yoo xam ne fii lañu nekk génnuñu ko li ñu tax a jóg nag mooy ñun dañu am procès boo xam ne li ko tax a jóg mooy servir Touba. mais pas servir ko ci ay wax surtout ay wax ju bon ak ju ñaaw déedéet ñun dañu ne dañu war a jóg tànkoo tànk kër gu ne dinañ fa ne maanaam dinañ fa dugg ñañ fay fekk dinañ wax ak ñoom dinañu leen déglu ñu wax ñu lan mooy seeni ay doléance parce que dañu jëm ci ay élection départementale te élection yu yooyu dañu xam ne am na ñoo xam ne dañ fi nekkoon jiite woon ko la war defuñu ko ba tax tey boo duggee ci askan wi yow journaliste nga ak yéen journaliste yëpp dem leen ngeen nemmeeku ndax xam nañu ñoom lan mooy conseil départemental xamuñu ko donc le fait que ñoom xamuñu ko rek parce que conseil départemental defut la ko war ci askan wi loolu nag moo tax ñun waa Bennoo Bokk Yaakaar ñu taxaw temm ci ne loolu dañ koy dindi ba mu set wecc askan wi ñu téye di leen fowe ak di leen nax conseil départemental di lu am solo loo xam ne mën na jariñ surtout quartier périphérique yi mën na jariñ ndaw ñi ci wàllum éducation mën na jariñ ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur sport bi maanaam sportif yi mën na jariñ nit ñi ci wàllum santé ak financement ak ndaw ñi surtout ñu ne loolu duñu nangooti kenn di ko jël di ko fowe Baye Saliou Dieng Moustapha Seck ak yeneen i kilifa dëkk ci yooyu gox seedeel ndaw yi seeni yar ak seeni teggin ñun ñii nga xam ne nag ñun la ñu nekkaloon ñetti fan yi li ñu lay seere ci ñoom mooy ay ndaw lañ yoo xam ne ndaw yu mat a jàpp lañ ndaw yu mat a jàppale lañ parce que am nañ yar am nañ teggin am nañ volonté kon du ñu nekk di guddal mais dañu lay xamale la ñetti fan yi ñu nekk ak ñun ñun vraiment rëccuwuñ ci dara li nga leen santoon ñu def ko ñëw nañ def ko na nga ko bëggee ñun ñii leen dala aussi gisuñu benn yoon ñu def loo xam ne si ni dañ leen koy xeebe kon encore une fois ñu ngi lay wax ñu ngi lay témoin seen liggéey bu sell seen liggéey bu rafet parce que quartier yi ñuy dugg. ay chef de quartier ñoo fa nekk ay bàjjenu gox ñoo fa nekk ay notable ñoo fa nekk dañuy woowaat en revanche tey ku fa defoon nag su noonu dañ lay woo di la nangam mais bu ñu wooyee li ñuy wax mooy seen ndaw yi fi ñëw de macha allah. Makhtar Diop ñëwaloon boppam ngir ndar képp boobu étape di wax ne jote mooy jiitu joote waaye waxit ne ñi nga xam ne doon taxaw tem ci gàllankoor ko daanaka seen i yëngu-yëngu amulu ko solo. incha allah am ndam. bu soobee yàlla defal dëkk bi ensemble. ba li war yéen ñëpp kenn ku lim ci war a gis lim ci war a lim ci war mu taxawee yooyu dañu échauffé wu mais suñ jógee dëgg-dëgg ba train bi dox xale yi rek ñoo jógagum gaa yi tiit xalé yi rek ñoo jógagum waaw té inshallah on va on va créer à peu près comité électoral quatre ba trois comités quatre comités électoraux dañ ko tek inshallah dañoo bëgg ak réew mi ñu taxawal créer sen comité électoral ñu créer benen force bo xamné comme par exemple ñom Seigne Gallas Kaltoum ak ñooñu benen comité électoral zone yëpp dañ leen créer comité électoral man matal Diop damay créer comité électoral buñ paree tamit le monde rural dañuy créer comité électoral da nga gis loo musta gis ci àdduna ñii nii suñ paree ci ñoom dañ leen di wal ni dege bu soobee yàlla loolu man Matar Diouf man euh, xam nga man ci li ma amal solo mooy li xale def man du ma teg programme bu xam élection ba élection jot man maay liggéeyal Touba lu xew gis nañ ma si sur le terrain bu mën na jotee ñëpp dinañ ma gis action sociale kenn daxuma ko je roule un an sur un lépp lu ma mën a def dama koy def ci dëkk bi def ma ko dara ngir sëñ Touba rek kon boog kenn gënu maa mën a liggéeyal dëkk bi du ma xaar ba élection jot. may créer benn affaire pour jéem a créer wut affaire yow mii samay activité bi yaa koy couvrir yaakaar naa ne trois ans i amul foo ma gisul muy jàkk muy juma muy inondation muy social yëpp yaa ngi gis ma koy def te ndamoo ma ko mais dama gëm ne sëñ Touba moo ma ko defal te dama ko war def ci dëkk bi te du ma ko ndamoo ma ko du ma ko du ci rëy rëylu dama gëm ne ci moom moom moo koy jox te te jox na ma ko damay ñaan yàlla mu jox ko xale ñu mën koo def ci dëkk bi mais yeneen détails duñ ko topp li ñu am solo mooy porte yi ñuy def dem wax ak askan wi loolu mo ñu ëppal solo mhm. que ñuy xol ay programme yo xamné élection ba élection jot mhm. ñun doxuñ ci loolu non non loolu amul sens parce que li am solo moy déggoo lim wax ñom c'est le droit le pli absolu am nañ ci droit loolu am ñent droit fo nga respecté ko mhm. bul faté c'est des opposants dañu opposé bugguñu mais ku la bëggul da nga koy da nga mais da ngay da ngay da ngay da ngay concentre nga dem ci ñi la bëgg ñi ñu bëgg bari nañ am nañ ay soutien yo xamné ne détails yi nekk suuf du jar wax mais suñu demee ba le 23 da nga xamné lii moom di ay ay waxu ay waxu ay wax yoo xam ne duñ duñ ci tardé ñun daal ñu ngi concentré wu ci li ñu war def ànd ak suñu jeunes yi yi xam ne ay jàmbaar lañ ci loolu lañ nekk mm. keneen kuy def nañ la bàyyi nga ko ne def li ngay def